tey fii day wàcc ba zéro. ba zéro ah. ba zéro. waaw ak ñoom jaaytaar gars yi yëngal. <laughs> mafia baa ngi de kuram dong. maama hmm? ndiig ak sama gars yi yu baax yi. kor Omar Thiaw Omar Thiaw. Lat Demba ah borom tige yi. Ah, borom waaw. Yang ini prepare de. Ah, suñu yore gars yi ñoo jënd ñu dem de waaw. waaw. tey moom dara du yomb de. nan ngeen préparé ah kom d'habitude rek kom ni ñu koy préparé rek. waaw ini nekkul la première ah Mbayang lu moo ya, xew la de. lum national. Hmm. du yomb dara du yomb de. dara du yomb de. waaw sa waa ji. Hmm. nakamu. waaw 100 pour cent mbayang lum. amul amul amul ginnaaw de. su yom su nar man sax si laa waaw su nar ñu toog fenn ñu bañ a ñëw. tey moom fii tey moom lépp ay jaar. gis nga gars hmm? ñëpp a ngi nii ah. waaw ñoom Babou ñoom Babou Sarr ñoom Lat. ñoom ñoom Jamme ñoom ndig Maas gars yaa ngi nii ah mafia bi. waaw ñoom Jallo nag ñëpp a ngi fi waaw wax nga dëgg. ñoom Fodé ñoom ñëpp a ngi si ah. xoolal loolu rek tey moom mënul yomb. mënul yomb de. déedéet tout droit Diouf yor. ku ko a ko dégg de. cent pour cent yi ñooy woote. dégg ngeen lu mu wax ak gars yëpp. ñoom Kuram Dong. ñoom Jaaytaar. Mbouda Mag. Jaaytaar jógal boog. xam naa ne tey moom nga daji fi euh. euh. ñu ñoom booy dollar yëpp. ah booy dollar gisaguma ah kooku de moom mu si bidig ba. waaw. dëggantaan am naa yegg ko des ci kanam. kii mooy sofooru Mbayang Lumbi. waaw maa ana mas? kii mooy ah. gaa yaa nga noonu tout droit. fii ci Daaru Mangi lay poids léger suba mooy poids lourd 1 million kooku kan Kumba <laughs> eh, min farba ah. Eldiozane ñaana sajje ya lamba jinay cay ndeysaan yaram daw na mekere mangarne ma muso ah meke de mekere mangarne ma muso me ñoma felta l'histoire retiendra oho o kor mbisine si bob na wondwan diwilke kuma ndefen xale o njom ne xay kor mbisine si bob na wondwan diwilke est ce que wa mo tekta na kima leke tele ah taxul Lomé l'histoire retiendra dans l'Afrique traditionnelle dans les années mille neuf cent jóg leen taxaw meeke seex boobu tenda o président fe jom ne kaga cegure jom fe ka leeguye jom ne jom fe ñom ne si ñaan ke kuna do no kata ken nak are ñom mu ki nulle ngolam ñom lakas yo yo de do ko bi sine si bob na won duan ti wil ke ambas alla majinati da daru ngari te ulle juuf bo wandi meke yone da daru te o yiyan min ne lamtade cuuɗama singi mum so korbinta bo fandigneke yo agre révélation ¿Eh? eh. e kono alaali o huna fiya ar to jaɓi ro créé a kono ar fo yokta kon meke jam ya bugum sin salum dombin farba ambo kat déplacement pour grandement ambasa bin farba daga boy 594 ambo do aéroport international to daru mangi ye meke ñom wudi ko Tigi. Ala ko koy si rali ah, yo ko iya. nah, iya, ba. Buta ba. Dimbali am den way. Fappa. Imbi ne tous tasa. Tous tasa. Mela kaja. Ambi no am iya. den Lum. Ah, aja sama gaay. Kekere facam. Bo waxe facam rek nga ne facam du mbayang lum. Tey mbayang lum xele fi ci Diofior mu nekk à domicile. Fa Thiam nan ngeen di préparer euh, làmbu mbay ak lumbi tey. waaw boo waajee ak boo waxee mbayang wax nga ñëpp. mbayang international du mbayang national. du mbayangu ñëpp la. boot ñëpp boole ñëpp ñu doon benn. bilaay ñu ngeen di préparer lamb bi. exactement. ah ñu ngi nii de. ñu koy def ndànk ndànk rek. ñu ngi si añ bi. añ bi pare na instant bi pare ñu dem si reer bi. yo fa paree nga nek amatrice 100 amatrice nga. Mhm. ñepp xamé la lolu eh. tay nga xewlé loy wax gaay ah di invité ñepp mhm. di wo ñepp hmm bu kenn tardé. hmm mbayang daal ñu mayang la. hmm joggé ba fee indi ko ba jox yo ñu wal ñu ñepp xam nañ ko. waaw. Mhm. kon tout droit. tout droit Daaru Mangi. Daaru Mangi si kanam. waaw. waaw. ok deeful borom woy bi way kere amul amna ben woy bu ñuy wax xam ya deeful ba ya dib te ya magge la ilaha illallah ati malaga nete fi xam ken dog soma xolu te xan ndike te xan jas nor wu yalum kere abdou ngodo lean abdou ngodo min farba ma sha allah kon 100% bayelung ten so umeke mbin su ngi muso lamta nu nu préparer itna nu nu préparer ta njomne yo mm -hmm anta ambay ambay tere fo in boy no wada yo ayaro tigi atigi ko ya, yo ko def sa ras da kana le reke je ko ana yo ala dawmi oho machallah ñu préparé a puta kene ke bo mbajandi ana wiine Lisan, jelel ma leen rek teranga la bonom, ang de bonam woytokum de Prepare an njawana wiin Koungheul Tanné ndeysaan golle Di Dibor Ndiaye Fatick yo Mbayang lum ndeysaan iyo famille fe yaaj Ya ga'a kene laya ndigil walay inchallah amin amin amin amin amin amin amin waay Amin, amin. Amin, amin, wa. Acha merci beaucoup. Nu mbi'ango acca fogaam ee xenon nge'a ten ref Ya Fatou Bangalaire a refu yoon mbayang di njala calel mosu ndeysaan xay de ngeed njom te ref ta meke kama panale Diofior mi singu mosu de nget meen deno fop nu nge'an de préparer ana awi we andoona yee vraiment den ngaru meen pour ka den ñaamna te vraiment kaga mosa trop mm. iyo ge a ya mm. Fatu, i ayo a yona mm. mosa trop iyo iyo ke nun namuna ten xeɗan roog o yala fi ne nun waay inchallah jege tiid mosa xa cent pour sang jam bugum siare anunde mer 10 ans i moƴno an lum gero ken area siare a nuun a lam tanu itam nam nu préparer itna na ni meke xay kama paana le yor nu ngarna kumando feen te refu ndeɓandong i antin na bayang lum nam nu préparé tan waaw ne ah Eh, bukan dong. Bukan edukawan. Kan suami kecil. Hmm. Iyo, iyo. Ay jofi wara kay tukwa. udah tangan. saat sate nun, sate kumando fe. Kaga musa musa musa. Iya, iyo, iyo, iyo, iyo. lan nyilan. Lande. Koni. aca bok yëkkati ko ma dégg tey ndeysaan déggantaan Coumba Ndofène a Coumba Ndofène oxa ngoog koy ca i ndeysaan waage yoob de ware waago yoob de cent pour cent mbayang lum mbayang lum a xooytanga moom fop xana ngar ndeysaan xana ñoowdana aar ref ten fu groupe um ndeysaan yaa keen ah caatu góor gi xoojalum caatu fayam ne janga cum caaxaan nag Dakar rek a gima arène nationale rek so <laughs> yaalu garadule luma jaqanga deg nek tena tena xoya i xekene xoya way kere Aïssa Ndiaye way kene anu kosa i way kere madame Faye lakin lay prési lay prési fofteno président maxe kan président ke fekere madame le ten fekere madame le ten fekere seri faya maga anno jo o ñowu jor ten jawu ceeb ni ten Astou Ndiaye maase no haa boori Gandiaye a sa diro xooxof jangi Astou Ndiaye maase no haa boori Gandiaye koni rek rek ya Astou Ndiaye geelu VIP may geelu VIP de groupe may waaw pour 100% ah. may geelu VIP bi ndax ay geelu VIP baax nañ gore nañ mm. yaatu nañ bëgg nañ mbay yaa ya, di fenn jagaar eh, yang nañ mbayang jàppale yang mbayang li mbayang bëgg rek la ñëpp bëgg mbayang ñëpp a ko bëgg barke yonent bi ndax dafa nabi Moustapha cakau kaw ca kanam rek ñëpp amiin amiin loolu sëñ Touba ak Cheikh Ibra yàlla def jàmm ñu lamb lamb ji rahman rahim egle alhamdulillahi rabbil alamin yal nañ yàlla defal jàmm ñëpp defal ko waa Diofior waa Diofior nag mbayang mënu leen a fay waa Diofior di àndal barke yonent bi mënuñ leen a fay surtout maa nag taxaw jaar yoon bilaay walaay kontaan nañ bu baax a baax baax na ay mbokkam baax na yaayam baax bilaay walaay lu kumba bëgg lool lay waa këram ñu bëgg barke nabi Mustafa waaw waaw acal jëlal ma ambiance mbayang yenu cey loolu daw na yaram jëlal meer dix ans bi ndeysaan ah waaw di cosaan mu taa olamee séeréer be layale mu la teera xadi jufe yaa oh mbayam loo ma waasa ngi cosaan mu taa olamee séeréer be layale loo la teera xadi jufe cay ndeysaan neex na waaye si si kanam lay dàq si kanam si kanam lay dàq kontaan naa bu baax a baax a baax waaw dëkk yi kontaan nañ barke yonent bi élément mbay ñaa ngi wax lu neex dëkk ñaa ngi wax lu neex waaye joof yoo di kontaan kambi way dunya ba mana roge Posi porteka na gambi way dunya ba mana roge Saidi san Neex na aca yaramu Kegin kam mbinne ndeysaan fop yaramu i siyaare nam nu préparer ta eh, njom neke and naye mbayangolum jegun commando fe na fog teen de soɓida nuun content rek waay content na mbayam content na commando fe supporter yo yo yo ngada roog rek ca kaw ca kanam mbaan amin amin commencé tina bisimilahi rahman rahim amin amin amin waay yo ya Kadi jangar umma ges wala fapu tes ah la digil aja